may wax tamit ne waa Bennoo Bokk Yaakaar temps yëpp dégg nañ leen ñu ne dañuy menacé Bennoo Bokk Yaakaar yem leen duñu seen morom xajuñu ci yéen. Bennoo Bokk Yaakaar te nag déglu leen ma bu baax seen wax yëpp seen wax yëpp mooy l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités ñoom ñooñu où sont-ils s'ils sont garçons nañu génn. dañ ñëwoon dañuy def contre manifestation anañu muus sax muus bu marron beige sax doo ko gis ci tali bi ñeneen la yaakaar alkaat yi ñoom la ñu yaakaar balaa may dee ñu dem génnee seen relique politique yépp ay Moustapha Niass nga xam ne toute sa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xam ne zumbi la kenn xamatul fu mu ne ay Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñi balaa ngeen di dund balaa ngeen di juddu yéen ñii nekk fii Aminata Mbengue njaay ak Moustapha Niass ñi ngi doon dundee état senegal ba tey ngeen toll ni ñi ngi dundee état Sénégal ñu dem bay doxee békki dañuy dundee état Sénégal ñooñu tey il ne représente aucun avenir pour le pays il ne représente aucun espoir pour le pays suñu desee woon tuuti ngor dañuy retraité dem toog yor seeni kurus te bàyyi réew mi ndax lu ne am nañ ko ci réew mi ñooñu tey ñooy génn naan dañuy menacé dama ne jàmm la woote waaye jàmm ñaar a koy dox ñi ko séq Macky Sall na fekk gi ne ci moom ma koy wax nag suñu papa suñu yaay yi toog ci kër gi parce que léeg dañ leen di nax soo waxee ñu ne waa ji dafa yaru ab mii kër la xam nga mii kër koo gis mu dem ci tele yi di saaga Macky Sall la ko jox xaalis ne ko demal saaga Ousmane Sonko bu paree mu recevoir ko palais moom mooy recevoir saagakat palais de la république moom Macky Sall ñun de kenn mësuñoo dégg ñu saaga waaye suñu fulla dinañ ko wax ba mu mat sëkk te lu ñu wax loolu la ñu gëm kon may wax sénégalais tey le Sénégal est en danger te benn danger moo la am mooy Macky sal lan mooy bilan Macky sal lu ñu mësul xam Sénégal tey ngay gis Sénégal ku jóg taxaw saaga nit ci waasoom ci etni bu mu bokk ci région bu mu bokk tey ngay gis ku dem tele wala dem rajo wala dem ci site internet saaga nit dugg ci vie privée am saaga ndeyam saaga baayam ñuy dund ak ñu dul dund tey ci Macky Sall la musul am Sénégal lan moo raw loolu ci violence te ñu koy def ñëpp mënoon nañ ko régler ci benn seconde mënoon nañ leen régler ci benn seconde musu lañ musuñu leen jox ndigal ne leen attaqué leen loolu mooy bilan Macky Sall waxu waxu ethnie waxu ethnie waxu tarixa waxu diine sengoor dem na ba jóge fi musul am senegal Abdou Diouf dem na ba jóge fi mosul am Abdoulaye Wade dem na ba jóge fi musul am waaye tey gis ngeen fi Sénégal toll mënuñoo am président bu yées Macky Sall fii ci senegal moo tax Macky Sall moom mooy des ci réew mi ñun ñu jóge fi wala ñun ñu toog fi moom mu jóge fi waaye mënatul nekk kon may wax tuuti it ndigal gi mooy mujj xaar rek may wax tuuti nag ci administration ak justice administration ak justice wata wat réew mi moomu leen ko de ku jàpp ni nee nañ la monsieur le juge solal la ab toge bu xonq jox la xaalis bu bari jox la ay woto nga bëgg a taal réew mi yow lañuy ñuy taal loolu dina jeex Sénégal de conseil constitutionnel juróom ñaari nit moomu leen nit ñi bu leen ñu fontoo juróom ñaari nit war a taal réew mi loolu est-ce que nañ koo nangu ñoo ngi woo justice nañu delloo ci seen xel parce que peuple bii moo moom mooy souveraineté moo voté loi yi à l'Assemblée nationale quand le peuple dira non et il déjà dit non ku taxaw ci kanam peuple yi peuple jaar sa kaw kenn mënu ci dara may wax tam waa force de défense et de sécurité yéen ñele toog na le bu leen topp seeni kilifa général Moussa Fall bu leen ko topp parce que intérêt boppam moo tax ñu mu leen war a jox ay ndigal yu ngeen warul topp ci réew mi ngeen dëkk tey intellectuel ngeen bu avez fait les bancs vous avez été à l'université xam ngeen ni Macky Sall li mu leen def loo du dëkk xam ngeen ko kon buñ leen yebal naan leen dem leen mate dem leen dóor dem leen torturer ay nit ngeen du ngeen ay bàyyi ma te lu métti ci réew mi yéen la gën a méttee su ngeen liggéey ba wàcc dangeen dem seen kër léeg-léeg dépense bu ngeen jox seen jabar sax du ngeen ko am kon bu ñu leen transformer en des objets de répression bañ leen loolu bu leen ko nangu quand un et manifestement illégal il faut désobéir loolu la yoon wax commissaire yàgg ak général Moussa Fall nee ngeen yéen ak ñuy surveiller ñu ngi leen di surveiller ñu nit ci dëkk bi ngeen dëkk ci dëkk bi ngeen dëkk ni ñu amee njaboot ngeen amee njaboot yéen a ngi ñuy ñu ngi leen di su ngeen ñu menacé ñu menacé leen parce que nag dafa doya ah. kon li ma bëgg a wax ci gàttal mooy Yewwi Askan Wi bu listam bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk ci élection yi bu bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk élection yi te désormais nag li ma leen di wax ay pour ay dent pour dent bu leen njëkk a dóore de bu leen njëkk a dóore bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen dóor xam nga nag la loi xam nga lu mu wax loi bi bi ñu voté ak téere yi ñu gëm xam nga lu mu wax dafa ne buñ la dóore booy fayu na nga fayu luy tolloog liñ la dóor waaye dama leen ne bu ñu leen dóoree da ngeen di fayu ba bis bu ngeen ko defee dóor dootul am kon à partir d'aujourd'hui dama bëgg mu doon une mobilisation permanente Macky Sall son pied notre pied jàmm dootu ko am fii 16 mois yi di ñëw Macky Sall duñ ko may jàmm fu mu génn nañ ko fa fekk fu mu dem na ngeen ko yooxoo parce que dafa jar yooxoo matul président il est illégitime Benno Bokk Yaakaar gannaaw force de défense et de sécurité ay nervi la ñu yaakaar nervi ban nervi moo mën a ñëw attaqué lii te nervi yëpp nag maa ngi leen di mettre en garde ndax xam nañ fu ñu dëkk xam nañ fu ñu dëkk xam nañ ñoom ñooy ñan nervi yëpp nag recensé nañ leen bi bu fi attaqué te boobu lay gën a attaqué ma daaneel nag wax leen nii nee nañu am nañu infiltré suñu manifestation bii ñu ngi wax naan ndigal bi mooy bu ñu paree fii dem pale demuñu pale amuñu benn soxla ci pale ndax bu dee ki fa nekk buqat na buqat boo xam ne bu ñu nee manifestation mu daw ci Macron laqatu jarul ñu fay dem lu am après manifestation bi may jël opinion bi yëpp à témoin jógewul ci ñun bu manifestation bi jeexee kenn ku ne fa nga ne na fa ñibbi tranquillement parce que xeex bi xeex bi day tàmbale kese ah te ñu Macky sal fii ci Sénégal 16 mois yi ko dese ci nguur gi bu ko buggee de yeggali ci jàmm na respecté sénégalais yi ndigal gi mooy liste Yewwi Askan Wi ànd ak liste wàllu Sénégal dañuy ànd ci élection bi et au 31 juillet au 31 juillet Macky Sall bu amee 50 députés assemblée nationale record lay doon bu ñu génnee ci loolu nañu xam ni enjeu bi du rek dem jël assemblée nationale ndax buñ ko jëlee coow li dina bëri de ndax commission d'enquête euh, d'enquête parlementaire yi na takarnase sàcc pétrole bi sàcc suuf si sàcc alal bi sàcc budget bi yëpp dina leer waaye ñaareelu enjeu bu am solo bi xam ngeen lan la xam ngeen lan la donte loolu soxaluñu parce que constitution Sénégal fi mu wuteeg bu bu bu bu bu les maîtres de Macky Sall mooy soo demoon France c'est le premier ministre qui définit la politique la nation fii nag dañ ne c'est le président qui définit la politique de la nation mais li leer ba leer mooy suñu gagné assemblée nationale coalition wallu yeewi ñooy former gouvernement daa di commencer redresser Sénégal avant même 2024 te bu boobaa nag te bu boobaa nag li ma gëm mooy Macky Sall dina takk ay kaakaam ñibbi ñibbi ñibbi ñibbi Mermoz kon bu ñu caaxaane lii bu ñu nangu la forfaiture du conseil constitutionnel Antoine Diome du ma wax ak moom parce que ab poussin bu immature la ñu teg ko fu ñu ko warul teg est-ce que pare ngeen pour combat boobu lan la leen combat boobu jaral lan la leen jaral laa bëgg a dégg lan la leen jaral kon bis ni ki tey restez à l'écoute parce que dinañ leen jox ay instructions yu leer yu limpide parce que mbir mi jeexagul bu dee dem nañu ba gis ni nag nee nañu liste nationale Yewwi Askan Wi du bokk ci élection yi fii Sénégal élection du fi am wala wala suy am dégg leen ma wax leen wala suy am fépp fu Benno Bokk Yaakaar génn ne day dem wote ji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 Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps